aùzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xasida gi ñu leen di jàngal Serigne Cheikh Gueye mooy ku ko def ci Serigne Salihu ki leen koy jotal seen mbokkum taalibe Imam Malick Diop moom Serigne Salihu fii si ji al azhar touba com ñu koy def nag ci ndigalul Serigne Touba Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Khadim Rasoul yàlla na fi yàgg lool te wér bu feggoo sunu jëwriñ Serigne Cheikh Fall bismillah bismillahi rahmani alhamdulillahi noori muur ba jot ci Serigne Salihu Mbacke mi doon xéewal gu sedd ni yuur alhamdulillahi nuuri muur ba jot ci sëriñ saalihu mbakke mi doon xéewal gu sedd ni ku yàlla jox kiita neewoo yàlla junni yu min alsunin laa ñaan ngir sant def nga lu xóor ku yàlla jox kiita neewoo yàlla junni yu min alsunin laa ñaan ngir sant def nga lu amam gi doy seede landig yërmandey kanu moom du lenn lenn lu dul yërmande jumti bu jur yàlla ko dooleele diinem ji mu di përëgëm ta def ko jaw falfara li naasi muy jëfi buur yàlla na toomatal wulare ak rafetal ak xol bu laab ajjikoom samaakini weer yàlla ko natoo matal wëllëre ak rafetal ak xol bu laab ajjikoom fawqa samaakini weer mbor waa da yegsi na ku giw bi mu yaa ku getti faas getti baxdaat soxlu ko déeréer ku jug ne day wut moroomam ne ko faan soriwul laggal ta dem fa ñu jéem laa faj te gëstu sa yuur ku jug ne day wut moroomam nee ko faan soriwul laggal dem fa ñu jéem laa faj te gëstu su saan suñ la naay ko ëppale ndox ngana ma seet booba sam xel na mbaati mu ñeer kambuk saan suñ la naay ko ëppale ndox ngana ma seet booba sam xel na mbaati mu ñeer asgor laab tabla jaambur la bu maanu lewet njaxlaf ci yàlla bu dee njàmbaar gëne ko ñaloor du xotti war ma du parpar la du worte du jëw sikkam sa daal mooy ne nuus bur yàlla rek bañ a ruur moo neexa àndal du soññeew sas ba noppi taxaw fum ne la ay jëf fa boo nab gopp booba di ruur moo neexaandal du xëy bis wan la leen lu dul yàlla ak yonen baak sëriñ Tuuba ñakay taxaboor weetoo na yen ni ku leen seen yan yan na ko man bam ne ku jox ma maay dundal di faj di ko yiir weetoo na seen yan yan ma ko man bam ne ku jur jox ma maay dundal di faj di lim faj ci réew mi réere yàlla xanaa am xel de jut lim ko foo jaar fa jooru daaraam yi mooy mas ba mu laxlaaxi waaju ca xuus génnaale jikko joxay tafoore nib libidoor daaraam yi dënn la buy torookeeru ngërëm la sëñ bu mag bii kuy jox kuy wal mu jam ko ci peer sëriñ saaliwu daaraam yi mooy xaadimul islaami di muritam saadeex bu koy santutal turux di taaj wataboor jëfal na yàlla ci daaraam yeelu dab ngërëmam taboole koog noppi yokkaat pas-pasam gën a nuur a pas-pasam nu xëy suufonku naa li ma ci ay jumaak jàkka daara diis na mbaa goor ak jëm kanam lan ko moo mu namp ko yit bu songe tayam tayam ja jaggi ko ruur ak jëm kanam lan ko mu namp ko yit bu songe tayam tayam ja jaggi ko la gontu dogoom jolle raja a ñaw taasan xijuñ xacci fum ne pacci la wi xel maa ka ñëw waaye lum def démb ci rafetal xelam ma fàtte ko tey jii dootu dal ca diniir moo xol ba daa finiti colom ga it taaj ba gaanu gedd addina reer sëriñ saaliw moo jekk xol ba daa finiti colom ga it taaj ba gaanu gedd addina xam-xam ragal yàlla ngor muñ ker samaandu yewen ku nekk am na ci mbër mi cër bu doon bu ko suur xilaasu kullu nafisin ci jikko ki melo afaala tafdil balañ jagleel ko jox ko mu ngoor daa mel ni njàmbaar akok tambakke bam ca jële mbatte fu waajur dem la bàyyi benn bu góor daa ni njàmbaar ak tam Mbàkke bam ca jële mbate fu ay jur wu dem la bayi benn bu góor baytu zoiru wa daano anta zailu nam dëggoo ci moom mile mooy waxtaan wagaaya di noor yàlla ko def muy sagub lislam ci wàllu gune nun ñëpp a koy tiitaroo ngir piir la waat na sëriñ saalimu yàlla ko def muy sagub lislaam ci wàllu gune nun ñëpp koy tiitoro ngir piir la war na si taxaw na tey ji ca mi'raabal xadiimi di njiit maamu mi baayam bana xaloob de moo di ñaloor sappem sa gudd na kaar kaar foofi xool da nga naar soose maa njaag séréer pël nit ku weex tukulóor apem sa gudd kaar kaar foofi xool da nga gis naar soose manjaak sëreer pël nit ku weex tukulóoron imam jumaandu la di faqiir rafet la ma xaa rijal xuroofe durunget genn noon wuti fu baay ba mas di sujood mang fay sujood di fam daaru ko jàng daa jànge muy lu nu wóor fum feexe ci farataam dem nag ca naafile ya dinaa fi diis diis yi mindeefi ci di banni fooraas di sampi hôpital ak i di jënd ay ordonnance suufub jirim di ko di yokki lampu di fay facture yu tollu ni ñay boole ca def assainissement ngir bu dëkk bi di digle añ makka ci di jébbalu nit kër yuñ amut lut ma lew na leen ci lu wóor di jokku tey yokku jaamal yoo bawul cene ba lu buddu njaasaan ci waawoon kawlax ak kafa mboor di xëy di wallu ku jomme jommi ngir mbiri kër mbaa guy rendi asgor cew ko jaasi ci biir ndar képp ay naafila moo gën a jomb taxaw ci suuf si laal asamaaw yàlla ay ki xam di xabiir ñëwul ne maay doomi sëñ Tuuba taxaw ak daa jiitu na ay celeen jël waar wu yaa bari nduur ñëwul ne maay doomi sëñ Tuuba taxaw ak daa jiitu na ay celeen jël waar wu bari nduur xel ko ma ngi na fay jaloore am na fa ndam mang fay yafal kuy yu foof kuy watti bakeer xel ko ma ngi def na fay jàlloore am na fa mang fay yafal kuy yu foof kuy watti bakeer wax nay mébét képp kuy murit na futti ku tey bu kenn des muy borom kaalaak boroomi musóor wax nay mébét képp kuy murit na futti ku tey bu kenn des muy borom kaalaak boroomi musóor bu kenn naw lamu mu def bu kenn de mu def ab denc lay doon du du saaw du nëb te du xuur bu def bu kenn naw la mu def ab denc lay doon du du saaw du nëb te du xuur feer ak peel bure saret camion dërëm ba miliyaar fobal loo am nga joor ko ci biir yàlla na buur yàlla sottal la mébét ak i ci dëkk bi may ko jàmm ak wér te dolli ko muur sëriñ seex yàlla na buur yàlla sottal la mébét ak i ci daar yi may ko jàmm ak wér te dolli ko muur yàlla na ko yàlla defal law fan wu gudd ta law ba ñepp naa lii de moom xar baax a doon sunu muur salaatu rabbi alal muxtaari ahmaduna bilaali wasaabi fi weer waa ngi fenq ka leer salaatu rabbi alal muxtaari ahmaduna bilaali wasaabi fi weer waa ngi fenq ka leer subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim motee maaju gaad way taalu beb ahmad alxadim borom jannatul mahwaami fagbul ñu ngën jikoom motee maaju gaad way taalu beb ahmad alxadim borom jannatul mahwa mi faggul ñu ngën jikoom borom xayga moo dis gor di di ngën ji tap di ab santkat buy sant jub xocc muy jikoom amul noogu neen yóbbul na waxtoom yësëf yu diis yurus loo wurus ciptaar agub xayma duñ morom amul noogu neen yóbbul na waxtoom yësëf yu diis yurus loo wurus ci akub xayma duñ morom atum jalsa mam feeñ la jël di bay nawet di bay noor di saytu gàncaxam def ci ayiteem boromam da ko taw fee xele waame jox ko xus tasol kow lewam muy ndëndi moo tax mbayam diwam mbayam mat na junni dagga daggay ju nekk am li mu sàq yum dul xam di sàqi fukk ak juróom bayam mat na junni dagga dagga ju nekk am li mu sàq xam di sàqi fukk ak juróom musaahir ma faj nay way tawat dàq xiib bu tar tasampal na kër mbooloo fegi gàcca not xareem musaahir ma faj nay way tawat dàq xiib bu tar ta sampal na kër mbooloo fegi gàcce not xarem teraangal na ay sëñ daara boole ca mag ñu yiw yejan loo xadimal Mustafa daa ko ta gàmmal na sëñ diw màggalal bernde yow it ña màggal si tey way laago daa dal gërëm di xiim tabax nay jumaa yóbbuy xujaaj togg ay ndogu mbayum saahiram lim jëf ku koy lim du jot dayoom bu kii bàkk woon mbër dootu bàkkooti waaye kii du kuy bàkku ngir lu jëf mu xeebu tatut fi moom ku koy bàkk sañ wax ne mooy doom di taalube tadim ibra faal di mbàkke bu somi mawdo yem ku koy bàkk sañ wax ne mooy doom di taalube di Cheikh Ibra Fall di Mbakke bu somi Maodo ta sañga waxin mooy roo tarbiya diw ñamam dinaanam di waajay xam bu ba ngir du giim ta sañga waxin moo xelli xel mu dim ndoxam mu suuxat ci sunu xol yi ba deewut wawut ni woom ta sañga waxin mooy roo tarbiya diw ñamam di naanam di waajay xambu taalam ngir dugim te sañ ngaa waxit xel ko fukki junni ak juróom la ci ay hectare mu tooloo ko def ko kéem danoo juddu gis xel koom ne taaw baa fekk yoo satub got la ak xabaan ñaar moodu njaay mareem ku xam yàlla kaage daa ko nekkal ba nekkatul ci kaw suuf borom suuf xitti suulal ko aw jiwoom dadaara suyiw xeptil ca dara lu tuuti tuut fuyiw laqulum jan jan mu waqee ko ab loxoom sëriñ saaliw dadaara suyiw xeptil ca dara lu tuuti tuut fuyiw laqulum jan jan mu waqee ko ab loxoom dadaa yar yaram yor yiir du naay bit rafet njortu cib dongam di muñ xeeti mankiteem dana yar yërëm yor yiir du yar jenn ayibit rafet njortu cib dongam di muñ xeeti mankiteem ku ak moom yëg na yaa fi kuréy mébét ci say mbir kudul yuqat ci muure la yërmandeem dangay yëg ne yit jiiwaay ku xeeñoo ku xeeñ lu neex taxee meemu jar njëggoo jërul koo janool mu yéem tabawin nga def sam ne koy root ba ñëw ci dex su yóbboo la koy neen lay wuju wut ko jër la jéem taku mu yar nga fonkum njàng da yokku pas-pasam ci neexal ko ba mu jébbal ko kaamil bu deefi desal na fi nun ay baat yu jar fàttalente muy ku fàtte boroomam yërmandeem jaayesul fi moom desal naa nun ay bayet yu jar fàttalente muy ku fàtte boroomam yërmandeem jaayesul fi moom ku roy sëñ bi gën say nawle doonte na doo ko jot ku def ci bammeel doo fekk lu yaa moom ku gis yàlla jiital xaafir istan bi tekka xaaf bili taw bi kon sanja rafet njortu fi raxiim ku gis yàlla jiital xaafir san bi teg ya xaa bili taw bi kon sanja rafet njortu fi raxiim su fekkoon ne man naa ndox ma xuus géej way ba wurus def ko daay bindal ko taalif yu diis gëléem su fekkoon ne man ndox ma xoos géeju way ba daj wurus def ko daa bindal ko taalif yu diis gëléem taxaw naa di ñaan bur yàlla me sàkk sang bi mu yam nañu xeeñoo sang bi roy ci ay meloom xala xayri xayril xalqi taaha bi alihi wa saabin salaamallahi fi yàlla mi nu moom على خير خير الخلق طه بآله وسعب سلام الله فيك يلا من نموم سبحان ربك رب العزة هما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Saliou yàlla na sunu borom doole ay ngërëmam ak leeram maam Thierno ñu ngi ñaan barab bi sunu borom yëkkati ko ba mu kawe njortul bépp taalibe rawatina bépp jullit ci barkeb Serigne Saliou sunu sang ba yàlla nañu mbégum àdduna ak àllaaxira yàlla nañu ci daje ngërëmu Serigne Saliou jërë ngeen jëf